mel l'infatigable oustaz Iran Ndao ñu gën koo xamee ci Ibrahima Badiane jaar-jaaram ci rajo Sud FM bu Thiès waaye ginnaaw si itam ñu bëri ràññee ko fii ci diwaanu Ndakaaru ci télévision bu am solo bi télévision bu mag bi nga xam ne moo di Sen TV groupe de média ñu dénk ko fi li nga xamante ni ci jotaayu émission yu am solo lu ci demee ni tontu bataaxal SMS ak seen diine. waaye ki nga xamante ni le PDG Bougane Gueye Dany group des médias doyloo ko am kóolute ci moom am confiance ci moom dénk ko émission bi nga xam ni moo di Grand Cœur Grand Cœur muy émission boo xam ni day dox ci wàllum social te képp ko xam oustaz Irandal Ibrahima Badiane xamee ko ci li nga xamante ni moo di social di dimbalante ak jaamu yàlla yi ak mboolem doomu aadama yi ba tax tax itam ñu mën koo xam ci jëmm ji nga xamante ni ku xam-xam ñor bari xam-xam lool macha allah waaye tamit di defendre suñu magul islam yi waaye tamit di défendre li nga xamante ni moo di daaree alquran ba tax na kii nga xamante ni itam oustaz Iran Ndao Ibrahima Badiane ñu mën koo xam itam ci wàllu dox jàmm ci mboolem yi nga xam ne fi fii ci diwaanu réewum Sénégal. Iran Ndao Ibrahima Badiane di ku bëgg ki nga xamante ni moo di Seydi Aj Malik Si radiyallahu taala anhu waaye da ngay dégg lay lay saa su ne kàddoom da ngay dégg mu naan la guddi guddi ci waawan ku bëgg Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul waaye tamit di joxe exemple lu ci bare bari ci leen mag ñi waaye noonu la bëgg itam di safoo mboolem ëtt këru diine yi nga xam ñu ngi fii ci diwaan réew mu Sénégal ba ci église. Oustaz Iran Ndaw Ibrahima Badiane ca njàmbaar ga ca fit ga amoon yéene lool doxal daaray sëriñ baaba si radiallahu taala anhu si la demee sàkku ji woon ndigal ci sëriñ Abdul Aziz si al moom sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu sëriñ bi xamal ko rek ni bés boo jëlee daara ji day sa maam xalifa male dana la jàppale ba tax na oustaz Iran Ndaw Ibrahima Badiane jël daara ji ba su altine 10 octobre 1990 ba 2021 kon nag kii mooy borom la 7 mai borom anniversaire oustaz Iran Ndaw Ibrahima Badiane boolem telespectateur bu jàmm ji info ñoo lay ñaanal nga dugg gudd fan lool te ànd a weer dundal 1000 ans sans ordonnance pos bu dellu si rek a neex gayndey l'islam gi. jàmm ji